waaleykum salaam waaleykum salaam. Mhm. waaw jëwriñ euh, dañu jot ay xabaar sànq yéen yegguñu ko ni am na lu fa xew ñu bëggoon nag li fa xew noonu ñu leeral ko ba xam nan la fa demee. waaw li fa xew day lenn rek la. Mhm. mooy sëriñ Saliou Thioune xalif général de Thiantakoune di sunu kilifa. li ñuy def njëkk a ñu ngi ñaanal Serigne mun taxaamu yàgg fi ci wér di ñaanal Serigne Cheikh Mbacké. Euh, ëllëg la fi war a ñëw tey dañoo ne ci waajal kër gi di ko bale chaque mercredi dañuy bale bale gi ñuy bale di waajal Serigne Saliou war a ñëw alxames pour mbooloo mi di ko fa fekk si yàlla dogal ñu dem ba boori six heures six heures demi soxna bëtër benn soxna sëñ Béthio dugg si ànd mbooloo ki jëkk dugg si it mooy Baye Fall chauffeur bi dugg see wax vigile bi ci bunt bi ne ko am na mbooloo muy ñëw dañuy nettoyé ñi tuuti ñooñu ñëw ñi tuuti soxna Batoor dugg si Baay Faal dem jëli ko indi ko mu dugg si mu jubal ci biir bi jubalee ci biir ñun taxul mu nuyu ñu bi mu wàccee xool nañu dugg ci biir euh, mu gën naat ci biir appartement bi am ci biir kër sëriñ bi ci kër soxna si di soxna da jàlloo bi mu fa duggee nuyu ay bokkam génn biñ génnee it ñoom ñu ngi jàmmante ñun nu wéyale suñu liggéey bi mu duggaatee këram génnaat taxaw ci bunt bi tàmbalee way soxna Aida Diallo sañ na ko nag ndax nun sunu yoon newul ci kenn kuy yëkkati sa kàllaama jëme ci koo bëgg ku la neex wayal waaye dafa fekk ni kër gu mag la sëriñ boo gis mu mag kilifa day gu mag kër gu mag ga ca biir kër ga day wut ay néeg yoo xam ni daf koy jox ay soxnaam soo demee njaareem ci për kër gu mag ga Serigne Touba da koo xaajoon dafa am fuñ doon def waa Barsàq ñoom lañ doon wax waa kër Serigne Touba yi ku ne da amoon sa néegu bopp fii ci biir kër seen Béthio gi noonu la demee bi mu ñëwee bu ko doon defee ci biir appartement am wala biir saalam ah loolu sama yoon nekku ci non non te li may wax yàlla tax waaye boo bëggee génn ci digg ëtt bi bëgg a woy mbooloo mi topp la te mbooloo ne fi mu sëñ Saal mooy yaa ngi provoqué yaa ngi tapage man mën naa ko muñ mais mbooloo mi du ñëpp mën a muñ bi mu ko defee dem ñëw mu jur riir mu yaatu mu woy lim bëgg a woy ba mu neex ko ci saa si ñun duñ def dara ci sëñ bi yëgu ko nu wax ko sëñ bi sëñ bi woon na ma ni bala daraa xew na nga wooyoon waxtaan ak ñoom ma wooyoon ci laa wooyoon yoon ñëw gis ko waxtaan ak moom mu ne dafa ñëw nettoyer si këram parce que moom la defoon prétexte pour ñëw nettoyer këram parce que xam nañu dañuy nettoyer tey ñëw nettoyer sa kër bi ko tàmbalee gaañu di ko def man taxul ma wax dara mbooloo mi taxul nu wax dara waaye nag ba mu génnee mbooloo mi bàyyi lañ doon nettoyer topp ko muy woy ci la buru yu bëgg a xew balaa buruwee xew muy répété wu dara à madinatu salaam man je parle en haute voix ba ñëpp dégg ma ma xam ni bëggumaa dox ci tappale bëggumaa doxit ci lu lëndëm te damaa bëgg lu may dox ñëpp xam ni nii la demee lii tax tey ma yëkkati sama kàddu bi wax parce que mi ngi bëgg ëpp boo ko defee sa kër sama yoon neewu ci boo ko defee ci mbedd mi mbeddum buur la waaye biir kër sëriñ bi sëriñ dee ko yilif am na ci loolu boo ko ci bëggee dugal du sotti man bu ma fi nekkee xanaa keneen waaye man ma ne fi du ma ko du ko seetaan te du ma ko mas a seetaan te lu xew it du ci umpanteeg sëriñ bi ndax ndaw laa suñ fi teg nii la fi yi demee ko baax. waaw jëriñ li li fi wax dégg nañ ko ndax euh, da nga ni euh, yëgal nga ko yoon yoon yoon woo ñan la yan kilifa la. ñi ngi fii bi ma yëgalee yoon yoon ñëw nañ ba wax ak moom. yoon boobu ñëw na procès préfet la wala gendarmerie waaw waaw. Euh, capitaine bi lañu waxal mu wax ak ñoom ñi mu war a waxal te ñi mu war a waxal it ñu ngi def seen liggéey niñ ko defee wax nañoo moom mu ne dafa ñëw pour nettoyer li muy nettoyer bu paree day dem biñ ñëwee it fekk nañ ko parce que dafa fekk ma def main libre ba capitaine bi digg way yi xam ni ñoom ñi ngi koy def bi ñëwee it ñi yebal fekk nañ ñuy jàng xasaay ci biir kër gi ci digg ëtt bi ñu tuuti laata muy parek moom ci lañ taxawal xasaayit yi ci la leen wax ni nettoyé ma indi su paree damay dem ñoom nag ñu ngi taxaw ci buntu kër bi di xaar moom mu pare dem noonu lañu fi yi demee. waaw li ñu askan wi xaw a lënt tuuti tuuti ci mbir mi ni mu demee est-ce que ñoom soxna Bator bi muy dugg foofu dafa ànd ak soxna Aïda Diallo ak ndax tamit am nañu sañ-sañ dugg foofu. déedéet àndul ak moom moom moo ñëw ak mbooloom dugg gi sëñ Saal da leen koo bàyyee ngir xam ni ay soxna yi way juróom lañu woon mu jox leen nu bàyyee leen seeni apartement loolu it ngir kuñ ci bëgg dalal wala buñ ci bëggee ñëw ndax yàgg nañ ci dëkk te way juróom moo leen ci dëkkaloon waaye kër gi day kër gu mag goo xam ni sëriñ bee ko moom te ginnaaw bu fi sëriñ bi jógee xalifa bee ko yor kon ñëw gi mu ñëw ci appartement am la jël bale ji defar defar bagaasam sañ na ko waaye nag la def sa kër di woote mënoo koo def fii parce que fii ci loxol xalifa bi na nekk te mooy joxe ndigal li. kon loolu daaw fa am. léegi ñoom ñu tëb tëb rek am waaw daaw am tëb ñu tëb rek def ko kon da ngeen jàpp ni mbir mi am na lu ci rax. waaw lii tax mani naa teel a wax. Mhm. balaa dara xew. fu ko mën a defee baax na waaye fii munuñ ko fee defee munta ne. Mhm. waaw mhm. noonu la demee. Mhm. Eh, ci loolu tamit est-ce que euh, sëñ bi moom bi mu koy yëgee comme ni nga ko waxee nee nga nga dem ci yoon ndax sëñ bi moom tamit euh, am na jéego yoo xam ji war na war na ko def fii suba. waaw xam nga sëñ bi bu xasee tànn ba jiital dalay bàyyi nga matale ndax. sëñ bi day seet koo xam ne day dëppook jamono ci moom ñi mu dëppook jamono mu fexe koo jiital ngir kooku di matale mbiru jamono jamono la ñu ne am na ci loo xam ni bu xewee dama koy yëgal ba mu yëg ko li ci des man la koy bàyyee man maa koy def ci ñi ma ko war a defee du xuloo du xeex mbooloo miñ fi fekk it mbooloo mu dal lañu ba tax na amul kenn ku yëngu lu dul damay wax ak ñoom ñu dégg ma kon sëñ bi su ma ko xasee yëgal li ma wax mooy lu derape jokkool ak yoon yoon nag ñi ma war di jokkool maa ngee seen ñi jokkookaay lu bëgg a xew dinaa leen woo ba xam ni lii xew na ngir ñu teel a ñëw pour xam li xew lu mu doon ak nu mu demee <laughs> waaw kon ci loolu rek li ñu mën a euh, jàpp ci mbir mi nam fa demee rek euh, am nañu yaakaar ni euh, fi mu toll nii lépp dellu si na si jàmm. waaw lépp dellu si na ci jàmm mi ngi këram gendarme yaa ngi ci bunt bi di ko xaar. <laughs> nee na day yeggali li muy nettoyé pour dem.